الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على السي... على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل رحمة للعالمين وأرسل فاروقا بين الحق والباطل مبينا لدين الله سبحانه وتعالى بيانا شافيا وواضحا وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في هذا المنوال ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan Mourchid TV seen mbokk daara Babacar Diop moo ñëwaat ak yéen ci seen émission al di leen ci dalal jàmm di ñaan yal na yàlla def jàmm ci xel yi ak ci xol yi ak ci jëmm yi ak ci nekkin yi ñu ñëwaat ak yéen ci seen tomb boobu ñu tuddee riayatul islam wala inayatul islam bil fardi wal ndax lislam day sàmm di jagleel ñamuy sàmm moo xam kenn la walla mbooloo la mu jagleel leen yoo xam ni ci seen dund bu ñu ko wàccul dinañu sàmm dinañu ñoŋ te dañu jàllu ci seen boroom ànd ak xol bu laab and ak ngërëm suñ boroom bi subhanahu wa taala ci anam boobu la wàccee xam-xam wax ni wa ma utitum min al ilmi illa qalila xam-xam jox naa leen ci yéen waa àddina waaye tuuti laa leen ci jox li mu ñu ci jox nag ci lu tuuti loolu mën nga ko seddale ci tënk rekk ci ñetti anam bi ci njëkk mooy li ñu tuddee al ulumul kawniya te mooy xam-xam bi mu jox waa àddina te mu seddale ko ci diggante li ñu tiim ñun ak li nu tiim nun muy asamaan ak suuf mu wax subhanahu wa taala ni wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jamian minhu mu ni yéen doom aadama tàggatal naa leen ci écosystème bi ba fu seen kàttan mën yem rekk yéen a fa yemale seen bopp li ci liggéey lew na leen bu ngeen ko tegee ci njariñal jariñe waxuma ngeen teg ko ci yàq ak yàqalaate te bari na xam-xam buy dox tey ci àddina bi la muy yàq moo ëpp doole la muy defar ndax lu nit jàddal rekk mu yàq yàlla lu mu wut rekk am na fu mu ko teg am na anam bu wax ni na ngeen ko ca jëfandikoo ndax mu jariñ leen te bañ leen a gaañ su ko defee nag xam-xam boobule mu tënku ci écosystème bi réalité la xaqiqa la boo xam ni dañ koy nattu buñ ko xasee nattu ba mu leer ci lay tudd xam-xam te bu xasee tudd xam-xam dootu nangu ay njortak ay sikki sàkkaak ay tricher xam-xam rek lay mën a doon amul foog naa amul defe naa amul lii wala laa lu mu uuteel rek nekkatuloo xam-xam loolu nag ñi ko gëstu ba indi ci luñ mën a teg loxo lu leer ñooña bariwuñu waxin la te nañ ko indee itam am na ca indiwin woo xam ni suñu ko toppee mën na la tax a ba dootuloo xam fi nga jëm ndax lu ñu tënkul rek bàyyi ko mu tinkiku rek su ko doom aadama toppee te joxoñu boroomam nekku fa mën na yàq ndax mën nañu dem ba def ci ay caaxaan di soppi dundinu nit ñi di dugal ci li nit ñiy dunde yu ci waru la bokk di jéem a xalaat nit ñi fi nekk nan lañ leen di wàññeek nan la ñuy defee néeg nan la ñuy defee nale waaye loolu taxu ñoo jóg beneen xaaju xam-xam bi mooy al ulum al fikriya maanaa xam-xam yi nga xam ni xalaat moo ñu koy inspiré te mu jëm ci wàllu tëralin ak wàlla wàllu làmbatu dëgg xalaat yooyu moom la yàlla daanaka gën a jiital ci nit ni suma la umpee yow doom aadama danga may làmbatu ci sa xalaat ci li la wër ak li la jege ak li la sori ak fu sa tànk mën a dem nga làmbatu ma fa te ya ngay gis ba xam loolu moo indi falsafa moo indi philosophie moo indi ilmul mantiq logique moo indi it ci diine li ñuy tudde ilmul kalaam maanaam wax joo xam ni kenn du la ca mën a jam waaye yow ku wax mën nga seetaat la mu wax ba xam ndax mën nga ko caa jam wala mënoo koo jam xalaat boobu nag yàllaa ko digle ndax dégg nga maam Cheikh na Tijaani almaktoom ni mu ko tënkee wane ni côté furqaan côté qur'an ak côté furqaan moo fi am côté qur'an bi ëmb ibaadaat yi nee na moo ëpp ay candidat fop ndax côté furqaan bi dafa jafe moo tax jullit ñu bari nanguwuñ wuñ faa dem waaye ñàkk googu fa ñàkk a nangoo dem moo tax li ñuy soxla ña fa nekk leen koy defal ndax moo indi mooy tafakkuraat yi muy wax yàlla suñ borom bi subhaanahu wa wax ni am na xam-xam yoo xam ni jàng téere du la ko may jàngal ba naan géej gi waaye bu sa xel nàccul sa xalaat naccul doo ca jot inna fi dalika la ayatin waaye li qawmin yatafakkaruun yàlla nee na am xam am na xam-xam yu ma denc yoo xam ni ñii nàccal seen xalaat ñoom rek laa koy jox waaye nag te teewul xam-xam boobu ay xalaat nàcc na ci bëjur jur ay ay anmaatan haila min al ay xalaat nàcc na ci ba jur ay tomb yu raklu sax yu raklu ci ay weranteeg dàgge sante yoo xam ni li mu yàqal penc yàqal ko diine tardeel ko doom aadama kenn xamul nan la toll bokk na ci ay idéologie yoo xam ni ña ko xalaat sedduñ ci cër ëllëg wala lu ñuy tudde sax yàlla bari na itam ci dimension spirituelle yi walla religieuse yi yu diine yi nga xam ni moom la diine wàccaale dàggesante boobu am na ci yu mu dugg ci diine ba indi ci ak jaxasoo indi ci ak werante ci ñenn ñi nga xam ni ñoom ñoo bokk diine ji dem sax ba ci wàllu histoire maanaa jubluwaayu histoire yu politique histoire dafa am jubluwaay bu politique ñu exploité cadre politique boobale ci biir histoire falsifié ko ba di ci xeexante ñii ak di ci yëkkate dara jay ñii ak yu ni mel beneen ñetteelu xam-xam bi nag xam naa ci waxtaan bi ñëw lañ ci gën a xóot incha allahu ko yàlla mayee te muy al ulumul xaybiya mooy xam-xam yi nga xam ni xay bu la jóge maanaam li ñuy tudde tey asamaan ba gannaaw asamaan ndax fii nu nekk mooy shahada fa nu managul a nekk te xamunu la fa xew lu dul lu ñu ci yàlla xamal foofu mooy xay foofa nag xabaar bu jóge ci yàlla jëm ci jaam bi moo ko cay jotal dara mu jaare ko ci ruuxu nit ki wala ci nafs nit ki wala ci fitra nit ki ni mu bindee nit te kenn fekku ko ca woon hmm? wala ci mantiqu maanaa xalaatinu nit ki wala ci sentiment nit ki yooyu yëpp dana am lu ca jóge ci xay bu jaare benn ci yooyu nit ki jot ci ak yeneen yu ni mel su ko defee loolu nag waxtaan bii ñëw ñu jéem cee indi rek yë ëpp solo insha allahu taala wa ma dalika ala allahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu